Eh, Seydina Omar Ba mu ngi doog a yegsi ci yeneen tool yaa ngi ci toolu rajo bi Seydina ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Abdoulaye naka eh, suba si. alhamdulilah ñu ngi jégalu de yenn saa yi dañ lay. <laughs> tuddee naa la ko. Eh, tuddee naa la ko. tey mhm. na ko Seydina dina la yokkal ko. waaw incha allah dinaa ko ko <laughs> yeggee. jërëjëf ba naka yite yi nag. alhamdulilah dina baax incha allah. xam naa yéen a yi la xëyee tey lu ñu mun a jukki ci euh, xeetu Walf Quotidien waaye yéen a gii di Walf Quotidien Abdoulaye dafa xëyee dellu soit ci élection présidentielle 2024 yi ñuy dëgmal Mouhamed Boun Abdallah Dionne samp na wax ne dafay bokk ci élection présidentielle yi di ñëw yéen a gi ne candidature boobu le bu fekkente ne lu dëgg la bu boobaa dina am ay jafe-jafe maanaam dina lool ci kii Amadou Ba mi candidat bi nga xam waxtaan dox ci mhm. diggante ba suñu naatango yi nekk fële ci RFI euh, wax na nag ci candidature Benno Bokk Yaakaar wax na ci dogal bi nga xam ne ko daal di tas parti bii di Pastef wax na ci Ousmane Sonko mi ñu ne dafa doon lëkkaloo ak ay terroristes noonu la ko yéen kaay gii di wàllu fukk dañuy xëy fësale yéen bi di 24 heures yéen kaay gii di 24 heures xëyee dellu soir ci Benno Bokk Yaakaar bi ñu ne Euh, ci bun abd euh, ci Mouhamed bun Abdallah Dionne mi ñu ne euh, bëggata jël daal caabi bàyyi ko ki nga xam moom moo di Amadou Ba ne ni ko yéen a kaay xëy fisale moom mii nag di bun Abdallah Dionne samp ndëndam wax ne dafay bokk ci élection présidentielle yi di ñëw keneen ku samp ndëndam moo di Maître Abdoulaye Tine moom nee na daal moo fas ne doon candidat de la vérité et de la responsabilité noonu la ko yéen a kaay gi di 24 heures xëy fisale quotidien fa mu xuus yéen kaay giir Sud Quotidien xëy dellu soit élection présidentielle 2024 yi ñuy dëgmal mu Abdoulaye Dione nag taxaw na ngir dëkk waa Benno Bokk Yaakaar gannaaw Mame Boye Diao Aly Ngouille Ndiaye ba ci ki nga xam ni moo di Euh, Aly Ngouille Ndiaye kon mhm. moom mii di Boun Abdallah Dionne moo taxu taxu euh, fas yéene wax déet président Macky ci tànneefu kii di Amadou Ba moom nee na moo tax mu am yéene taxawal yoonu boppam noonu la ko yéene kaay gii di Sud Quotidien xëy fes yéene bi di le peuple quotidien yéene kaay di le peuple présidentiel 2024 bu Abdallah maa sanga maanaam maa ngi wu noonu la ko yéene gi xëy fesale mhm. nee engagement ci wàllu xam euh, gu mat gi war a tax mu mën a jiite réew mi noonu la ko yéen a kaay gii di la peuple xëy fas direct news yéen a kaay gii di direct news tamit ci loolu la xëy dellu wax ci Boun Abdallah Dionne mi nga xam ne nii euh, dëdd na waa coalition Benno Bokk Yaakaar dem fekki euh, sam fas yéene samp na mbokk élection di ñëw moom mi nag du Boun Abdallah Dionne li ko tax a jóge mooy fexe ba indi rupture indi doxalin bés yéen kaay gi direct news ci loolu xëy dellu si waat yéen bi di le monde bu dee yéen gi di le mandat dafa xëy samp laaj bëgg a xam dogal bi nga xam ne Mouhamed Boun jël na ko wax ne dafay samp dina bokk élection présidentielle yi di ñëw ndax trahison politique lañ ko mën duble wala mhm. ambition bi te démesuré noonu la ko yéen gi xëy fësale ci jamono jile Bougane Gueye Dany moom ma ngay soldat la ma nga woon fële ci diwaanu euh, Kédougou dem na fa la ci Xosanto Missira Sabodola Bafé Mako Tambacounda Kaffrine. Mhm. Euh, ñëw fa nag ak loxo neen waaye jël na ay ndimbal jébal leen ko profité na si kon daal di ñaaw taxawaay alkaati ak gendarme yi jëmale ko ci askat wi noonu la ko yéenekaay gii di la mandat xëy fës la yéenekaay bi di l'évidence yéenekaay gii di l'évidence tamit ci loolu xëy dellu si waat ne tobaronkoto Mako Missira Kédougou Tambacounda Kaffrine foofu yëpp moom Bougane Gueye Dany jaar na fa yëkkati na ay kàddaam nag daal di ñaawlu jafe-jafe nga xam ne ji ci àll bi te mu gis na ne kenn tegul leen kutub euh, euh, ma antenne quotidien mm-hmm. antenne quotidien dafa xëy dellu soit ci ah. mm-hmm. euh, ni moo di ca New York mm-hmm. wax na ci

indi ak dem jom jom ñoo indi li tax mhm. Mame ñan Niang teg tekk ak léegi kenn dégg ko yéen a kaay yi ne jéem nañ def lu ne waaye mënuñoo fexe ba am ji tontu waaye li wérta woon moom Mame Mbaye

Baldé ak Modou Lo mm-hmm. ñu jàpp ko ni ko juróomi fan ci weeru moom Ama Baldé jamono la mu ci jub rek maanaam ci dëkk fa nga xam ne foofu la fekk mm-hmm. baax di bàyyam euh, lam ci a ko euh, ay formalité lay doon noonu la ko mm-hmm. yéene kaay gii suñu lamb xëy fi si Abdoulaye ngoog euh, fës ci kóolute beek ànd beek Walfadjri ñu àndaat ak yëpp leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te